asalaamaaleykum mbokk internet yi Kër Ndaanaan TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare waaye di leen dalal jàmm di am mbégte lool ku ne xam na ne démb la bés woon 15 mai ah, ki nga xamante ne mooy Mo Gates woon boobu bés arène nationale ci diggante ki nga xamante ne mooy doomu Dangu ak Jordan muy ñaari xale yoo xamante ne ay ndaanaanu làmb lañu ay bëreekat lañu ku ne gis nañ demba doomu Dangu nu mu duggee ci làmb waaye Jordan. dañ koy encouragé bu baax ndaanaan la champion la ku bokk ci làmb làmb moo demee noonu jot dañ lay ñaan nga ñëwaat ci làmb làmb ak sa kanam xam nga ni ngay def ba ñëwaat ci làmb ñëwal làmb day baaxoo di nga toll ci moment yoo xamante ne nii tolof tolof lay daal di dikkal waaye foog nga ànd ak gëm yàlla ñëwaat waaye doomu dàngu ñu ngi koy félicité bu baax ci ndam li mu am demb ku dul ndaanaan wala champion mënoo génn ci loolu noonu mu dugal waaye dañ koy nuyu ba pare ñu bàyyi ko mu nuyoog mbokku téléspectateurs yi kenn Daaraan TV amee on jibila bismillah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli sangu sang yi di sant suñuy waajur bu baax a baax di sant ñëpp di rafetlu aussi xam nga fii moom suñu kër la wax fépp dafay neex mais li nga moom moom daf cee gën waaw mais ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax waa kër Ndaanaan TV waaw di leen wax ne suñu site bi suñu site la mm-hmm. waaw site bi sa sit la Keur Ndanane TV nekk Tëngéej doomu Dangu di doomu Tëngéej Cheikh Bécaye di doomu Tëngéej loolu fierté la kon bu ñu ñëwee fii doomu Dangu démb sa dugg si si làmb ñu gis beneen doomu Dangu lu waral loolu. waaw làmb moom kom ni nga rek làmb ay niveau la te lu nekk rek ak li mu li mu li mu laaj démb bés su lañ fi indi rek loolu la laajoon waaw mooy sérénité def le tout pour indi ndam lu Tëngéej parce que ndam lu Tëngéej soxla woon la. Mm-hmm. Mm-hmm. ndam lu Tëngéej soxla woon ñu gis ci wàllu mobilisation bi macha allah mu mel ni démb waxuma dàngu rek waaye Tëngéej gépp a mobilisé wu dem jàppale la liggéey boobu nan ngeen ko liggéey fii ci Tëngéej. non di sant waa Tëngéej yëpp ak ñiy dëggul Tëngéej yëpp tey béggee doomu dàngu doomu dàngu moom doomu dàngu Tëngéej yëpp la du ñaaka nag nga am foo cosaanoo muy dàngu aussi ñoom ñu jiite si aussi. Mhm. ci woote bi aussi ñu leen di sant bu baax a baax a baax mention spéciale ñoom. mais doomu daangu doomu daangu tëggee yëpp la te vraiment taxawaayu tëggee yëpp démb sentir nañ ko waaw. mu mel ni taxawaayu tëggee démb ñëpp sentir nañ ko doomu tëggee yëpp a génn démb isaat ku gis doomu daangu mobilisation bi mu def macha allah rouge blanc yi ah fépp nga koy seen doomu daangu mu mel ni communication bi nga xamante ne moom nga def contre Jordan ba ñu bari naan doomu daangu dafa naagu ci combat beeg yooyu noonu nga ñëw changer beneen stratégie. mu mel ni làmb noonu la baaxu non ñun duñ ay gan ci làmb comme ni ñu koy waxee rek làmb bu ne ax lamu laaj eh, duñu ay ay ngaa ko aussi ci làmb waaw la ñuy wax làmb ak la ñuy bëree mën na bokk ko mën na bañ a bokk mais ñun li ñuy yóbbu làmb lu nekk làmb maanaam bés mën nañu dépassé eh, bés mën nañu dépassé suñu adversaire bu ñu gisee ne fii lañ ko war a mën a jaar pour am li ñu bëgg rek dañ koy def te loolu ñu doon wax ci combat bi bokkoon na ci aussi lu ñu yombalal ci combat bi mu mel ni da nga xam Jordan parce que ci communication bi depuis ba combat bi taxawee ba léegi ñu gis beneen slogan bi nga indi sa adversaire dafa mel ni da nga yaakaar noo yaa ko mënoon ci ci làmb ji parce que tout le temps ni nga daan communiquer ak moom dafay dëgër ba nga comprendre dafa mel ni daa amoon foo ko jàppoon wala am foo ko téewoon waaw non xëy na combat bi face to moo xaw a bëri rek mais man ñi àndal face to nii la mas a demee bu ñu jëlee combat yow ci lu may lor nga nekk pour am ndam ci man man aussi si loolu laay nekk donc yërmande war a ci am. Hmm. Eh, combat du bi rek. waaw combat du bis bi rek waaw. Hmm. du bis bi rek ñu ñëw ci làmb ji. arbitre sifflé la sa diggante ak doomu euh, sa diggante ak Jordan ñu gis dugg bi nga xamante ne dugg nga ko ñu bari nee nañ erreur nga def foofu parce que dugg bi sori na te ba ngay dugg adversaire bi gis na la mu àgg la foofu ñu bari nee doomu dàngu. ku la gis macha allah liggéey nga ci combat bi ci lépp parce que jàmbaar bu ñu àgg foofu noonu boo dajee. te tactique de bëre bi nga def foofu macha allah dafa am solo. waaw sanañu sant yàlla bu baax a baax parce que mbër moom def na erreur ci làmb daan mbër bañ na def erreur aussi daan mais man je sax di def erreur di di daan moo ma gënal parce que victoire finale bi rek mooy mooy mooy compter comme ni ñu ko waxee. def nañ erreur ci combat bi mais alhamdulilah ba bi ñu rectifié waat ci combat bi ba suñu borom indiwaat ñu defal ñu ndam waaw. jotoon bi mu la àggee foofu noonu public bi ñëpp a tiitoon moment boobu noonu ah, lan ban yëg-yëg nga amoon foofu moment bi mu la bi la Jordan àggee foofu ak bëree boobu da nga da nga ko entraîné wala lan la. non man bàyyiwuma woon sax xel ay ay ay yàlla xam na ne li ma gisoon mooy man fi ma nekk jekk naa kon loolu laa gisoon quoi fi ma nekkoon jekka naa te bi ma li ma bëggoon daal am naa ko ci combat bi mais mbër la woon boo xam ne bon trois bi mënul ñàkk ci ci combat bi su nekk moom wala man mais mënul woon ñàkk ci combat bi parce que si suuf foofu la ñu doon bëri. parce que Jordan ñu si bëri euh, lim lim doon yaakaar ci combat bi ak lim doon xaar mooy dóor bi boo xoolee gauche bi sax la gënoon di bàyyi xel waaye nga ñëw indi bëri. non làmb noonu la làmb moom ni koy waxee du biir day xëy wasin làmb dafay am war. Mm-hmm. dafay am war mais man xamoon naa ne démb ah, sama loxo gauche du yomb mu jug parce que xam naa ne moom loolu la doon xaar. Mm-hmm. tellement que foofu la focaliser woon bokk na li li yàq combat bi li ma xeexul ak moom na li yàq ci combat indi woon. non non li indiwuma ko dama bëre. li moom xeex amul. li yàq combat moom. Mm-hmm. bokk na ci parce que moom li mu doon xaar ci man yëpp mooy man na xeex ak moom. parce que adversaire bi loolu la doon xaar. waaw mooy li ma lay rek euh, li yàq ko mbaam bokk na ci li ma xeexul ak moom su ma xeexoon ak moom peut-être moom li ma doon entraîné mën na ko appliquer. Mm-hmm. waaw mais li ma xeexul ak moom yàq na stratégie mm-hmm. nga ñëw indi nga ñëw indi bëre ñu gis tactique bi nga def foofu noonu macha allah wax dëgg yàlla ndaanaan la champion la ku bokk ci làmb la doomu daangu fa la jëm. ci kanam rek <laughs> bu ma tënkee wax jëlal rek ma jël. waaw loolu moom maa la ko wax. parce que waa moom dañoo yàkkamti doomu dàngu euh, am fu mu yegg ci làmb moom la ñëpp sax di ñaan waaye pour le moment dafa jot doomu dàngu bëri ñi nga xamante ne mooy ndaanaan yeeg tonor yi nga xamante ne ñoo nekk ci kaw parce que prouvé na nag waaw moment bi kenn mënatu ko bañ ci làmb pourquoi pas doomu dàngu Zarko doomu dàngu Diène Kaïré. waaye man déggoo li ma la xanaa waa Tëngéej lu ñu wax rek man pare na parce que man Tëngéej laay bëreel. mais am na koo xamante ne sa xel mu ngi ci moom. man non ñi sama xel nekk ci ñoom bëreeguma ak ñoom. am na ñu naan sax Reug Reug Sa Thiès pourquoi pas mënul xaar foofu. déggoo li ma la xanaa ñi sama xel nekk ci ñoom yëpp duñ ñu ngay lim ñi man wax naa la fee deux ans trois bu ñu limee ñetti mbër si Sénégal dañ ci war boole force. waaw lu leer. waaw donc ñun la ñu teg suñu bët ñi ñuy bëral nii ñëpp lu mënul ñàkk la rek ñu fiy ñu fiy ñu fiy jaar pour àgg foofu waaw. parce am na ñoo xam ne mer nañ sax ci adversaire yi nga xamante ne moom la ñuy jël moom ngay jël. non mënul ñàkk parce que unanimité moom lu ñëpp nangu amul sax suñu kër amul fenn. Mm. waaw sport moom moo demee noonu ku nekk ak rek gis-gis bi nga def mais il faut ñoo xam ne aussi ñun làmb mooy suñu métier moom la ñuy moom moo ñuy dundal moom la ñuy def lépp. nañu aussi toog di entraîner ak dépenses yi frais yëpp yu mu méttee te duñu bëre te mbër mu fi bëriwul dañ lay fàtte. Mm-hmm. waaw il faut aussi gars yi xam xam xam xam xam loolu. Mm. sport yi la rek soit que da ngay am lii la gënal adversaire bi la gënal nga jël ko mm. bi fi sës loolu moo fi am waaw. parce que dëgg-dëgg doomu dàngu ñi mu war a bëreel ci làmb bareegul ak ñoom te booba léegi mu ngi def ay preuve am yi si kaw doomu dàngu ñëw na yegsi na jël leen ko ñi si kaw ñu may ko sens mu bëreeg ñoom parce que yor na li nga xamante ne ñi ne ci kaw moom la yor ci wàllu public ci wàllu doole taxawaay lépp mu ngi ci liggéey bi ngeen liggéey ànd ko écrit songaan gay waaw muy sant rek dama xaw a sonn sax may ubbali mais li may wax nii rek liggéeyu équipe la parce que doomu dàngu tour bi rek la moom ah moom la ñu di gis. mais ñi koy waajaak ñu muy kontaagal yëpp ñooñu ñëpp macha allah mention spéciale ak moom ku si nekk li nga war a def feex nga ko man coono yi may daj ci maanaam ci li ma war a def amaana moo ci gën a néew dafa nekk li nit ñi mën a gis rek. mais man li ma war mooy dem entraînement ñëw tëdd ñu ne ma defal li ma def lii mais am na ñoo xam ne man moment bi may tëdd di nelaw di récupérer ñoom ñoo ngi topp àll bi di nekk ci man mm. am na ñoo xam ne ñoo ngi topp àll bi di uti alal bu ñu def ci combat bi am ñoo xam ne ñoo ngi seen course a nelaw du nelaw mm. Mm. donc affaire bi noonu la rek fiir versa ku si nekk li nga war def yëpp def nga ko dañuy sant suñu borom bu baax a baax ba mu ba mu ñu sottilee ñun ñëpp liñ ci liñ ci bëggoon ku ci mel ni euh, Rambo ba ma koy jëlee ci ndogu mbër laaj naa ko ci combat bi doomu daangu dafa wàññi poids est-ce que poids bi mu ko bi mu wàññi arrangé na ko parce que bu ñu xoolee Jordan moo sutoon moo ëppoon waaye doomu daango waxoon na ne jouru combat bi bu ñu si moo ko Jordan du ma yóbbul dara am na foo ko tegoon lool ci ah, wàllu liggéey la wala ci mooy man li ma gëm rek li ma gëm mooy gis nga man combat xam ne su may kët sa xam na li ñu leen nuyoo passage ñoom ñëpp suma kët ñu nekk nekk def sport ñëpp ñu ngi leen di nuyu au passage mais li rek man combat jëluma ko di yokk poids wala di wàññi poids damay entraîner très régulier lu mu fa fekk rek ma xam ne lii la mais li ma arrangé ci combat moom laay moom laay yóbbu. Mhm. su laajee ma ma ma diis xam nga mën na diis te du am yaram. Mhm. aussi ma diis maanaam lu lu combat laaj rek dama koy def am yaram nag wala ñàkk am yaram moom. yooyu ay ay parce que démb vrai athlète lañ gis nag 100 yi nga doon def. non mooy mooy mooy yoon man su may préparé combat damay pare li nga xam ne moom laay bëri ji. Mhm. damay entraîné selon man suma adversaire mais entraîné wu pour yokk poids wala kii non non. su ko Rambo seedal na nee na doomu daangu bu du combat sax day liggéey day entraîné moom ci entraînement rek lañ ko. non moo ñu war moo ñu war que ñun li ñu bëgg ci combat yëpp. xajul ci diggante combat ak date donc ñun dafa war dafa am benn niveau bu ñu war a dem te niveau boobu ñu war a dem la la fay yóbbu mooy nga nga nga nga régulier si entrainement nga am performance si entraînement man daaxuma fi bëri tëngéej. Mhm. gënuma fee yaru ëppuma fi mbooloo. mais xam naa ne bokk naa ci mbëri yi nga xam ne am na fu ñu teg seen bët ci làmb te loolu moo fay yóbbu yëpp mooy ah, liggéey hmm. ni bi moo bëgg a dem parce que làmb ji fi nga war a dem du ay caaxaan moo la fa yóbbu hmm. liggéey bu méttee métti laaj ak sérieux waa liggéey bu metti métti ak sérieux ku ci mel ni maam ñaaw di sa ménagère ñu ngay nuyu au passage mu doon koo xamante ne ku ku baax la ku wàccee boppam ah doomu daa ngum maam ñaaw muy def lu am solo ci sa carrière. yooyu non kooku suma frère la suma xarit la et suma kilifa la suma ménagère la suñu secrétaire général ikiri la maam ñaaw maam ñaaw tënge jébu la. Mm. maam ñaaw tënge la muy seexaax man lay seexaax ñeneen ak ñeneen ak ñeneen donc ñun mbëru tënge yëpp dañ ko ñaanal parce que soxla woon nañ lii di ñaan aussi yeneen maam ñaaw am fi. Mm. Mm-hmm. yeneen maam ñaaw am fi kon dégg ngeen doom daangu li mu wax am na solo trop. ndaanaan la sampiyon la kon comme ni ma koy waxee rek ñi si kaw nañ ko bàyyi xel te xam ne ñëw na yegg si na il est temps ñu bëreeg moom parce que nag dafa liggéey dafa def ay preuve am ba yegg si waaye li ñuy wax rek làmb moom moo tëree noonu doomu daangu ñi la jàppale ci làmb ji ba gi fii. tëngéej tëngéej dafa rafle dañu am problème mu ñu ñu jàppale. waaw tëngéej képp xam nga li ñuy wax sompet dompet sax si sot la bokk vraiment sentir nañ ñu waa Tëngéej yëpp sol la nañ suma kër ndijaay bi ma toog nii mooy Ousmane Ndiaye. suma ndijaay la suma kilifa la. Ousmane Ndiaye maa ngi koy nuyu la passage. fii laay suma xarit fii laay defee lépp suma parrain aussi maam Bokari Samb suma staff Baye Moodu Yacine Mouma Seck Diagne Ciss Messi Idrissa Ndiaye suma kilifa aussi Mohamed Ba. moom aussi mention spéciale Sama Ndour Tivaouane Touba Casamance waa Samina waa Ndaayaan waa Pikine xam nga Kër Ndiaye Lo fépp suma suma frère euh, Ahmed Gueye Ibou Gueye suma suma grand frère ah, suma lépp ak seexam Pape Mas ñooñu aussi xam nga mention spéciale mention spéciale à à ñoom xam nga ay ay Ayta Diagne aussi xam nga maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax. Ndiaye production bi. waaw Ndiaye production bi ñooñu aussi man. maa ngi koy siyaar làmbaloog la. ñoom ñëpp sumay sumay grand lañ. Uh-huh. xam nga ñoom ñëpp sumay grand leen di gërëm ñoom. ñëpp moment bii nangu lañ nee nañ doomu daangu mooy mooy suñu mbër nag. non ñooñu sumay frère lañ. nee nañ da ngeen nekk nekk bu yàgg nekk boo xamante wax dëgg yàlla ba nga nekk ñoom ba léegi gisuñu ci beneen kanam boo xamante ne wan nga leen ko lu dul yar. ñooñu sumay frère lañ ñooñu ñëpp. làmb moo ñu boole mais mënatuñu tàggale ah. dàngu famille aussi Tëngéej bàyyiwuñu benn benn quartier. benn quartier bu ñu tuddee waa Daasalaam dafay mel ni nañu waa Fass waa Jokkul waa Yëgoo waa Daar Rahman waa Sancaba waa Nimsaat toog fii di lim quartier Tëngéej yëpp. maanaam ci Tëngéej yëpp yëpp sentir nañ seen taxawaay ci combat bi ñëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp monsieur le maire de la ville aussi jàpp na si euh, Omar Cissé monsieur le maire aussi de de la monsieur le maire Rufisque Nord jàpp na si bu baax a baax assan kase xam nga euh, aussi Alioune Mar monsieur le maire aussi jàpp na si combat bi daal li ma la mën a daal mooy Tëngéej yëpp di si ñoo ñoo si ñoo Tëngéej yëpp. tëngéej yëpp jàpp nañ ci. ñëpp sentir nañ mbëru tëngéej ñëpp jàpp nañ ci. parce que préparation bi dafa yàggoon trop. ñaa mbay Rijal Omar Faye Rijal aussi mm. ah jàpp na si bu bu baax a baax Amina Kiro xam nga maam góor jasaaka. jasaaka maa ngi koy gis moo monsieur le ministre. Paka Boy Matar Ba. Paka Boy aussi xam nga jàpp na si bu bu baax maanaam ñëpp. ñëpp jàpp nañ ci combat bi bu ma limee rek dama dul matal. mais daal euh, Cheikh Becaye yow mii sax échangé nañ du bari doo duñ ko mën a wax. dëgg la dëgg la ci combat bi nga ne ma lii ak lii ak lii ñu échangé yi te comme li rek dompet sax moom si sot la bokk. combat bi kombaa tëngëj la ku si nekk am na loo man def nga ko yow lañ ci mën yëpp def nga ko. Mhm. su ma ñaankat yi lañ ci mën yëpp def nañ ko si su ma staff man li wax naa la li ma si dej rek moo ci gën a tuuti dafa nekk lu ñu di gis rek. Mhm. mais équipe la. équipe la gis nga mbër entraîné na ba pare mu dem ñu ñàkk ñu ñu daan ka si lu ñu waroon def te defuñu ko mbër entraîné na ba pare maanaam ñu ñu daan ko donc entraînement ba pare dafa war mbër rek mais dafa am yeneen ak yeneen yeneen yeneen yoo xam ne moo koy accompagner te yooyu yëpp ñun ñi nga xam ne ñoo ma ko téel ku si nekk macha allah mention spéciale gis nga Baye Modou mi du lekk du naan su ma amee combat barki yonent bi damay tëdd di nelaw sax mu nekk ci man moo ma équipe am bi yëpp Thiam Ciss Mama Seck sama ñaankat yi ñoom ba combat bi taxee ba léegi nelawuñu dañuy génn seen alal di si def barki Yonent bi dañ may ñaanal di génn alal di si def du dara lu ñuy gañe ci man mais li tax ñuy def yooyu yëpp muy yaakaar bi ñu am ci man yàlla na ko suñu borom mottali yàlla na ko suñu borom mottali parce que ñu làmb booleetuñu ah. benn affaire la rek boo xam ne dafay jeex mais la ñu tënk ak la ñu boole moo ëpp maanaam àdduna moo ñu boole. te loolu moo ëpp solo yëpp suma boy bi aussi suma frère laay ah maa ngi koy bigee bu baax a baax laay moo ngi cent mais sama waa ji nee naa mu indi ko sa waay maa ngi nuyu soxnam soxna si bi ka mu ñëw fii ah maa ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant mm. waaw di sant ñëpp daal euh, damay wax ci monsieur le ministre Matar Ba ñu gis ko démb mu ànd ak délégation bu bu rëy muy euh, Mame Gor Diazaka ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom la àndal waaye monsieur le ministre Matar Ba liñ naa li olof naan ku yokkul yaa wàññi moom dafa yokk ci làmb depuis ba mu ñëwee ba léegi mu ngi ci dox ay jéego yu am am solo euh, dangu waaw macha allah ah. macha allah Matar Ba comme ni ñu ko waxee rek jig na espoir bi ah te yàlla na gën a jëm kanam 100 pour cent rio bi aussi jël nuyoo bi rek tekk ci badu mbay mu jaarale ma ko suma suma suma gaa yëpp waaw ñëpp daal maa ngi leen di ñaanal jàmm waaw di ñaan aussi xam nga yàlla na fi jàmm sax daal hmm. ànd bi ñu ànd bu rafet bi yàlla bu si seytaane man dara waaw yàlla wu seytaane man dara mais daal kontaan naa ci ci ci ci ñëpp man dañ ma yónni woon rek liñ ma yónni rek laa dem defi ñëwaat donc daal maa ngi gërëm tëngeej ñëpp ñëpp ñëpp sama famille spéciale ah maa ngi leen di nuyu ñëpp waaw di gërëm ñëpp waaw. lay wax ci Kër Ndaanaan TV. waaw mais non lii suñu suñu ñoo ko moom <laughs> Kër Ndaanaan TV moom ay ndaanaan rek a fa nekk te dañ leen di ñaanal ah, ca kaw ca kanam rek te lépp luñ ci mën a dama ko woo mbër mu woyof la nag dama ko woo léegi rek mu ne ma loo mën a jàpp bàyyi ko te nga ñëw parce que yéen boo leen ñëwee da ngeen war a ñëw parce que doomu daangu seen doomu daangu la te niñ ko ni mu ko waxee ba ñu ñëwee tamit noonu lañ ko amee waaw ñu ngi lay ñaanal ci loolu rek loolu mooy mooy yoon mm-hmm. parce que bay bay moom day day day day commencé say weewu tànk bu ñu contrat tënkul dara tënkuñu mm-hmm. dafay gën a dañ ciy gën a sawar di wax fi nga xam ne foofu la ñu dëkk wala fi ñu xamee mais daal ñu ngi leen di ñaanal daal ca kaw ca kanam. ca kaw ca kanam ah. kon mbokk yi yéen a ko déggandoo doomu Dangu champion bi ndaanaan bi nga xam ne moom lañ seet ci woon fii nga xamante ne mooy Dangu euh, di fièram kon dañuy jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne tey ñoom ñoom lañ fiy fekk di jaajëfal sama caméraman Fodé jënd caméraman yi ah lu taay di dox ci yu mel nii ku ci mel ni Iba maa ngi koy siyaare équipe bu Ndiaye équipe bu kër ndaanaan TV yëpp. ñu ngi leen di nuyuwaat di leen siyaarewaat bu baax a baax a baax a baax père Ousmane maa ngi koy nuyuwaat bu baax ah ci këram lañ nekk nii comme ni ko doomu daangu waxee muy suma per di suma lépp lépp lépp loo xam ne problème la bu ma am rek taxaw na ci wax dëgg yàlla ku baax lool ñu ngi koy ñaanal tawféex ak li xamante ne bëgg na ko yóbbu tëngeej yàlla defal ko ko sotti ko am mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk tëngeej ñun tëngeej lañu am amuñu leneen lu gën a kawee tëngeej kon mbokk yi ñu ngi leen jëfal bu baax a baax jaa ngeen jëf thank you